acca ñu ngi ci cinquième jour campagne bi ba tey bàyyi woo leen actuellement dañoo pause ndogu pour mën a woyee li nga xam ne moom mooy liggéey bi mu mel ni rek fi ngeen tegoon seen tànk ba tey teggi woo leen ko dañu mën a wax sax ne dafa gën a yokk waaw waaw fi ñu tegoon suñ tànk duñ ko mën a teggi parce que gis nañ njariñ bi mu am gis nañ ne population bi ñu jëm safoon nañ ñu te yàkkamti nañ ñoo gis tey jii ñu koy commencé benn affaire bu ndaw la woon rek boo xam ne man ak samay xarit rek ñoo ne woon dañuy def benn euh, convoi bu ko defee ñuy yëngatu wër-wër fenn ci Ndakaar après ñu dem Ndar parce que sax suñu xarit yu dëkk Ndar ñoo ma waxoon ne ma il faut ma ñëw Guet Ndar parce que dañ fa bëri ay soppe il faut ma ñëw ma ne leen kon dinaa wut ab ma ñëw kon oto teel a ñëw rek ñu tàmbali mais finalement gis nañ ne am na doole yaakaar nañ ne tamit am na lu muy jariñ quoi am am am na njariñ looloo tax nag duñ ko mën a bàyyi vraiment dañ ci continuer nekk. di ci di jox ko respect bi ak heure yi ñu soxla yëpp ñu ko koy jox même bu fekkee ñun tuuti la ñuy nelaw it dinañ ko def ni ñu war a ni mu war a amee. Ah, ñeneen ñi ñu ngi wax ne tey jii Touba dakaar Jolof Podor amul ñëpp ñu ngi may téléphoné ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal. foofu laa bëggoon ñëw ndaxte ñu bëri ñu ngi naan booba tey coalition Diomaye président ak leader yi ñu ngi Dakar kañ la ñu génn fa fas yéenee génn dem ci région yi parce que aussi euh, élection 14 régions du Sénégal ñoom ñoo ko seq du Dakar kese. waaw d' accord loolu gis naa sax man ñu may woo téléphone di ma ko wax mais il ñu xam benn affaire dama njëkk a tontul coalition Diomaye coalition Diomaye. dafa nekk coalition boo xam ne dafa nekk fukki borom xam-xam duñ jiw li ñuy def noonu après xam nañ ko euh, ñoom xam nañ lan lañ si jublu euh, ak lan la ñuy wër ci loolu parce que xam nga élection locale wala élection législative campagnal ko boo ko teg campagnal présidentielle local voix yoo mën a am localité boobu rek nga mën a euh, législative tey jii Dakar Euh, numéro 1 bi mi ngi rawee numéro 2 bi plus de 100000 voix mais teewul 5 députés rek la boo xool 2017 parti pouvoir mi ngi rawee woon parti opposition moyen de 500 voix te teewul 5 députés yi rek koo jël loolu dafa am genre raw gàddu bu dee nag présidentielle dafa gën a complexe que loolu présidentielle tey ku gagné Dakar ni nga ko war a gagné comme ni mu gagné woon nga xam ne dafa gagné Pikine Guédiawaye Dakar. gañe Rufisque gañewaat Thiès Tivaouane comme noonu nga xam ne région région de Dakar bi yëpp da ko gañe région de Mbour bi région de Thiès yëpp Mbour rek lañ ci perte région de Diourbel commune Diourbel rek Diourbel rek lañ ci perte euh, defe naa ne Louga tamit Ndar maanaam fàtte naa yooyu sax mais ñetti dëkk yi rek bu fekkonte ne gañe nañ ko ni ñu ko gañee ci législative yi premier tour bi leer xam nga li ma wax bëgg a wax bu baax loolu nag il faut ñoom nit ñi xam ko quoi dakaar boo ko gañee ni nga ko war a gañee gañee ko dëgg te gañeentu woo ko gañe région de Thiès bi yëpp te gañeentu woo ko gañe de Diourbel yëpp te gañeentu woo ko gañe nga premier tour. dégg kon nañ jàpp ni yéen li ngeen di def ci calcul bu gañe nga premier tour loolu moo tax dakaar mu ëpp importance ci présidentielle ka nga dem feneen parce que parce que mën ngaa wax ne ñett yii ma la wax parce que ëpp na cinquante pour cent di dem muy dakaar ak Thiès ak ak Diourbel tey Pastef su gañee dakaar ni mu ko gañee woon gañe Thiès ni mu ko gañee woon gañe euh, Diourbel ni mu ko gañee woon su ci doolee Casamance ak yenn dëkk dëkkaan yu ndaw yi rek maanaam kooku amatul calcul premier tour bi gañe nga di nga gis ku dem ba par exemple tey mën nga dem Agnam gañe Agnam gi quatre-vingt-dix pour cent benn école bu nekk parcelle wala Grand Yoff moo ko gën exemple bi ma lay jox mooy seize commune ñoo nekk ñoo nekk département de Diourbel booy xool quinze communes yëpp Euh, Pastef da ko pertoon Yewwi Askan Wi da ko pertoon ci législative yi jàll ak local mais teewut commune bu Touba bi muy gagné moom moo tax 16 communes yi bu ko pertee du am njëriñ donc kon campagne ville la campagne présidentielle ville la fi école yu mag yi nekk nga fexe ba dem fa battre fa campagne bu baax nga xam ne boobu gagné dangay gagné score bu rëy kooku boo ko gagné amul fu ñu la mën a gagné waat ba mu wàññi la dara voilà lii du local du législatif présidentiel la. mu mel ni comme ni nga ko waxee ñu bari ñu ngi doon lamlamee ni sax gagné premier. waaw démb nag te yomb waaw démb nag sax Sonko dafa waroon a génn prison loolu la lañ doon toogaandu parce que génn Ousmane Sonko tamit maanaam kooku jàpp naa ne histoire waru ko fàtte. Mhm. te bu génnee jàpp naa ne coalition bi démb bu fekkoon Sonko génn na bañ ànd ak moom ba gàttandu ko ba yëngal li ñuy yëngal ba noppi. nit ñi dañ fàtte ne bi ñu nekk. ñu des ci actualité yi ana Sonko mu wax fu dugg fu jëm. ba élection yi Sonko ñu tuddaat keneen. te loolu rek baatal na campagne. campagne bi da ngay dem ci ay dëkk. di jéem a créer ay événement di créer ay mbir. bii nag dañoo am ngàndum maami dofo événement boo xam ne euh, maanaam moo rëy. mais lan moo tax euh, génn Sonko. waaw maa ngi am yaakaar trop nag tey keneen dana génn. waa am naa ci yaakaar bu baax incha allah li tax génn loolu jarul expliquer mais dafa waroon a génn nag voilà mais su fekkoon génn na émotionnel mu génn fekk coalition Diomaye président nekk euh, Dakar ba ñu taal seen camion dem jëli ko mu yëg ci camion bi ñu jiital ko kooku lan la bokkut ak nga génn ñu naan euh, gaañaa nga Louga gaañaa nga Fatick ak bokkul su fekkee ne. génn Sonko da nga ko dégg ci bis bi mu war leen a fekk Dakar nga annulé sa lépp taxaw xaar ko moo gën fuuf dégg nga moo gën fuuf tañ ñii euh, Pastef parti bi gars yi baax nañ trop mais dañuy jiital nit ba noppi ba koo jiituwaat bu fekkente ne convent boobu leader yi ci nekk yëpp mën nañ def yëfu cuune ci campagne soxlawul ñu leen di wateel ñi dégg ñi yor réew fukki borom xam-xam duñ juum fukki borom xam-xam yu honnête duñ juum ñoom li ñuy def nañ leen bàyyi xam nañ ko mm-hmm. gis nga dem Medina toj ko ba Médina mokk am na raison yu mu ëpp ay voix ci ci Sénégal dégg kon donc mm, leader yi boo leen jiitalee ñu nekk ci seen affaire bul topp naa noo génnal dakaar génnal dakaar ba koo def benn rythme boo xam ne nii lañ doon def non Almalick Ndiaye daa war a xeex jomaay na génn xeex di yooyu ay slogan la yoo xam ne yooyu baaxul gis nga nit boo amee leader da nga koy jox respect wóolu ko ci xam-xamam. soo amee conseil nag kenn terewul liñ bokk nga wax ci sa xalaat mais nga wax ko ci bin manière xalaat quoi mais pas ay dénoncer ay kaas ay génn leen génn leen mel na ñii li ñuy def ñi dafa baaxul. finalement sax mën nga dem ci benn dëkk benn koñ war a karawaan dañuy gis ne yow fii waroo fi ñëw parce que da war a génn dakaar bu dee booy loolu lañ wax wax wax wax mën ngaa dugg dem Pikine wala nga dem Yaraax tey ñu ne noonu génnal dakaar bul dugg fi yew fekk da war a dugg il faut loolu bàyyi ko daal yor Facebook rek wala sa kii rek. Pastef parti xalaat la man mii nii nii di tey bokkuma Pastef awma carte membre mosuma dugg seesu Pastef mosuma dem benn réunion bu ñu ne Pastef a koy def mais teewul samay gis-gis ak samay xalaat maa ngi koy doxal ci parti bi ba mel na sax ma mm, ma maa bopp ba kenn aayewul loolu mais doo jàpp ay leader ay kilifa ñu jékki di asarne wu ci seen kaw comme ça xam nga loolu day dem ba mu yàgg day nekk loo xam ne baaxul daal te dafa am yoo xam génn leen Dakar génn leen Dakar ci ay kilifa yoo xam ne yow yow ñooñu ñoo war a doxal Sénégal te nee loolu ñoom nga yakaar ñu doxal réew mi nga bëgg leen a campagne loolu di leen arsa di arsale pour ñu naan génn leen dëkk lu ñu génn hmm? il faut ñu nekk il faut ñu il faut ñu ñu ñu bàyyi yooyu daal voilà loolu maa ngi ciy boo yëpp ñu xam ne fukki leader yu honnête duñ juum boo gisee gars yi nekk fii di wëraanu bàyyi leen wala boo amee ah waa gars yi baa fàttewu leen kaw gi nag ah gars yaa ngi foofu di leen am na ton boo koy waxee day mel ne que ne da ngay asarne wu ci kaw nit yi quoi te loolu moom baaxul daal. kon baax na tey moom loolu laal bëggoon naa ko wax trop. mi ngi woon sama xel depuis ma toog fii ba léegi parce maa ngi xool Facebook bi nii <laughs> voilà kon daal nañ bàyyi gars yi nañ bàyyi gars yi ay ñoom marito ñaan ay ñoom Guy mari Sagna ay ñoom Mimi Touré kap ay ñoom euh, Mari Marème Soda ay ñoom El Malick Ndiaye ay ñoom Amadou Ba bu Pastef ñooñu mënuñu woon daje ay ayib dafe mënuñu daje di def yëfu caaxaan dégg nga buñ dajee rek li ñuy def loolu la bàyyi leen ñu def dañ bàyyi coow yi nag waaw dégg nga te am sa xalaat tamit uh-huh. nga wax ko parce que Pastef parti xalaat la mais am na noo koy waxee rek yow wax xalaatatoo mais dangay ngay digal say kilifa te loolu du noonu ko ok